ëpp daal. bu bu weesoo tracasserie yi ngay wax ni ci police ci police. Hmm. maanaam arrêté leen laa leen xaalis. te loolu lu ci ëpp yéen ñu di laaj par exemple euh, ay kayit. Hmm. kayit yi boo ko boo ko xayma ci ci koppar nga am kayit yëpp ci xaalis. Euh, kayit yooyu pour nga pour nga complété ko. est que dem ngeen ba laajte wut ay information ba xam kayit wu ne. Hmm. la muy la ci xaalis. non euh, man yooyu def naa ci def naa ci gëstu. am na am na sama benn collègue bu ma ko doon laaj mais xam naa ne carte grise nee na ma dina ko di mun naa ko mun naa ko am ci quatre vingt mille. quatre vingt mille carte waaw assurance moom ça dépend bu la neexee nga dagg sa trois mois. wala sa six mois ça dépend ci sa ci sa niveau sa tolluwaay rek. ak permis de conduire day day day laaj.

bari ñu ko am teg maan boo gis mu am bu am permis hmm. du am lépp daal non du am lépp du am lépp te boo xoolee maanaam ñàkk wane kayit sax moo gën nga wane lii suñ la jàppee nga wane lii ñàkk la loolu sax mooy gën a difficile hmm. ñu ci bëri dañuy dañuy dañ suñ xasee jàpp ñu xam ne complétuñ papier dañuy bañ sax wane dara hmm. parce que par force di nga fay waaw au lieu que au lieu que au lieu que ngay ngay ngay wane yi nga am ak yi nga xam ne amoo ko te da nga fay rek maanaam da ngay da ngay da ngay wane ne daal préféré fay quoi voilà mhm. heure bu heure bu ñu la jàpp moom di fay seen association bi fi mu nekk nii lan ngeen taxawal ci jéego ci yan tànk yombal sen liggéey est-ce que yéen ngi xalat peut-être dem gisante ak yenn autorité yi pour peut-être am ay financement pour permis de conduire parce que ak yaa wax di mm-hmm. ngeen di dajale pour jënd moto mm-hmm. mais est-ce que tamit bala ngeen di jënd moto comme ni nday ñaa wax gënul ngeen xol mm-hmm. naka ngeen di taxaw ñi nga xamanteni ño nek ci biir association ku ci nek mo a am këyit këyit yi nga xamanteni day laaj euh, moyen du ci melni permis de conduire ngeen peut-être ay partenaire wala ay ñu nekk ci état bi ñu jàppale leen pour ngeen mën na ñu mën leen ko yombalal pour ñu am ko. waaw loolu loolu ñu ngi ciy liggéey bu baax loolu ñu ngi ciy liggéey parce que ñu ngi def suñu na ay yi ñuy def chaque fin de mois it am na ay cotisation yoo xam ne ñu ngi koy def global ko léegi loolu jël nañ ci intention hmm, jéem a gis ak yenn autorités yi. pour ñu teg ci yoon bo xamné ne mëna yombalal ay kayit pour que ñun ñep ñu am ay kayit daw dans les normes yi nga xamné ne duñu am benn difficulté lolu ñu ci ciy liggéey bu baax waaw. mais par rapport ak sécurité bi itam parce que euh, souvent kii di cag-cag di euh, problème de sécurité est-ce que tamit ñi di dawal sans permis du am ay risque ci tali bi euh, yu ni mel euh, lu si mel ni ay choc wala on ne sait pas parce que tamit euh, quoi qu'on puisse dire jagataay bëri nañ cag-cag yi bëri nañ am na nga xamante ni feneen la ñuy jugee euh, ci euh, sous-région bi mm-hmm. ñëw daal di xool benn rond rek taxaw fa nekk dañuy sax léegi transporter ay nit nekkatul ay colis léegi nit ñi sax dañuy jël ay cag-cag est loolu tamit xool ngeen ak seen collègues yi naka ngeen di organiser woo ñëpp nekkul ci association bi waaye est mm-hmm. yéen a ngi tàllal loxo ñeneen ñi nga xamante ni ci yeneen secteurs yi lañ nekk waaw Vincent ñu ngi ciy waxtaan ak yeneen yeneen yi càq-càq man yoo xam ne ñu ngi ci beneen secteur bëgg nañ gën a sensibiliser fexe ba maanaam càq-càq man yi nekk ci région bi yëpp nekk benn fexe ba maanaam gën a moderniser liggéey bi ndax liggéey bi ku ne xam na ne difficile na lool difficile na lool mais ñu ngi ciy liggéey daal de toute façon. fexe ba gën koo sécuriser ndax ku te xam na ne tali yi parfois dañ ci gis comme li ngay wax doon choc yooyu da ci am gaa mais it bëggoon nañu it maanaam dimbali ñu ci maanaam di ñu may voie yoo xam ne dinañ ci mën a jaar facilement dem mais parfois di nga jaar ci espace yoo xam ne sax euh, di nga fa dajeek oto yoo xam ne parfois day mel ni ñoom dañ lay koñe te bu jàpp naa moto waru mën a am embouteillage quoi moto fumu jaar fumu jaar fumu jaar rond-point ci kii fu ngeen gis mu seen bët fu mu may rek ngeen dugg des fois dañuy gis ay affaire yu dangereux yo xam ta da ngeen koy def lolu mom lolu mom parfois xam nga liggéey bo dem da ci am ñoo xam ne manam gëdd bi gëdd bi ngi ko wara jox day dess day dess mais ñun suñu association tout le temps dañ ci waxtaan Euh, dañu ciy waxtaan mooy respecter client yi. Mm-hmm. ak euh, daw ci sa teyu bakkan ndax li ngay li ngay li ngay dawale di ci profité xamoo di nga ko fekkee ou pas ñun tous toujours rek dañ ciy waxtaan tali bi soo ci nekkee gisoo espace patienteel jël sa temps nga xaar ba am espace. nga soog a dem mais parfois euh, borom oto yi. boo xoolee taxi surtout taximaan yi. ñoom moom suñ suñ suñ su nday kii lañ su nday wujj lañ ni ñu koy waxee. parce que ñu ci bari dañuy wax ne ñun ñoo yàq seen seen seen liggéey. biñ bi cag-cag bi démarré ba léegi ñoom seen affaire seen liggéey dafa dafa xaw a taxaw te it man jàpp naa ne kenn ku ne li nga war a gañe rek di nga ko gañe waaye xol yi xol yi daal la ñu war a feexal. waaw waaw ni ñoom dañu am kayit di mat lépp pour def transport yéen hmm. amoon benn kayit pour def transport waaw ñoom ca taximaan yi waaw loolu la ñu wax mais ñun suñu amoon kayit sax te te maanaam moom ñoom bàyyi ñu xel suñu amoon kayit yu normal ñoom dañuy dagg te ñoom bàyyi ñu xel lépp def lépp fay xaalis def transport en commun yéen nag yéen amoon benn kayit tey tey jël seen client tey jël seen client. mais mais suñu man naa ne ñun suñu amoon kayit tey jii jàpp naa ne tànk tànk féexaluñ seen xol maanaam ah di jégalu sax ci comme ni ma ko waxee. xam nga Ousmane dama ci am ay dama ci am ay doom bàjjen yoo xam ne ñoom lay farakanteel su ma wàccee. waaw man ak ñoom suñ suñ du ne parce ñoom loolu ñu ñuy wax yéen amoo leen kayit. ba pare bëgg jël suñu suñu suñu wërsëg wala ñooñu seen wërsëg mënuñu ko jël. nga mën biir euh, hmm? liggéey cek cek maan est-ce que dox na comme euh, nit ñu dox na sax peut parce que bu doxul woon duñ gis jën boo gis léegi bëgg na jënd moto di dawal wala même fekkee da nga gis sax koo xam ni genre mm, kii. Mm, buri gi buri moom temps yi dégg naa jënd na moto jox ko benn waaye mu koy ceg cegal xam naa ne bëri na xaalis lool de. waaw sant yàlla bu baax cag-cag moom. Euh, te léegi liggéey la boo xam ne xeet nañ xalaatuñ ko. Euh. mais cag maan moom. Mm-hmm. dox na doxul. parce mm-hmm. que du du chaque jour lay dox. Mm-hmm. nekkul chaque jour lay dox. mais ñu ngi sant bu baax ndax ñu ngi ciy faj suñuy soxla ñu ngi ciy.